di leen jaajëfal ci ni ñi nga xamante ne ñun ñëpp di ay sénégalais noonu la ñuy lii di jàmm ak démocratie ñu xam ne ñun ñëpp coppite gi am ci kaw bopp réew mi di élection présidentielle yi ñu weesu doonte commencé na sax ci ay xat-xat niñ ko jeexalee rafet na taaru na ba seen àdduna yëpp ñu ciy bàkk naw ñu ci te duñ ci jaajëfal kenn ku ne ci ñun nag war ko ndamoo waaye war ko téye boole googu ñu yàlla boole ba lu mu xat-xat buñ ca duggee ñu génn dañ ko ciy sant bu baax a baax rawatina ren giir indépendance dafa tombeek kooru chrétien yi jeex ba ñu fete Pâques kooru jullit ci di waaj a jeex ñu jubli ci korité ren gi xat-xat yi ñoo waral nu ñu daan defee organiser défilé bi dañ ko doxale noonu waaye dañuy yem rekk ci def lu ñuy wax cérémonie de levée de couleur waaye du tere ñu jàpp ne ndam la ci ñun ci gannaaw ba ay nit xeexee ba ñu moom suñu bopp ba am suñu indépendance di ko fete at gu muy ñu ñu xam ak ñu ñu xamul ñu leen dina seen combattant ngir Sénégal moom boppam Sénégal doon lu mu doon tey ma ciy ñi nga xamante ne yàlla tegoon na la fii ci bopp réew mi muy président Léopold Senghor di président Abdou Diouf di président Abdoulaye Wade ak di président Macky Sall mi fi mujje ndax kenn ku ne ci ñoom am na loo def ci li réew mi nekk tey muy lu def ba ñëpp respecté ñu ci àdduna ci kaw loolu laa fas yéene tabax tabax tamit jëmale ci loo xam ne moom la Sénégal na ma doon fi ñu toll nii diggante bépp sénégalais mbokki Sénégal fête nationale nag saa yu ko waxee ci indépendance dañuy xalaat suñu force de défense et de sécurité ma di leen wax sama mbégte sama jàppale ak sama kóolute ci lépp loo xamante ne jox na leen jox nañ leen ko dénk leen ko ñu koy doxal te muy luy àndi jàmm fii ci biir réew mi ci bitim réew ci Afrique wala feneen ci yeneen dëkk yi di fàttali ko tamit suñu jàmbaar yi nga xamante ne ci nu ñuy demee pour jàmm am ci fépp ñu fay xeex am na ci ñoom ñoo xamante ne daanu nañu ñu di leen ñaanal yàlla yërëm leen te di masaw ñëpp ñi nga xamante ne am nañ ci ay gaañu gaañu mu seen njaboot te mu fet bi di force des armées au cœur de la cohésion nationale maanaam ñi nga xamante ne ñoo yore kaaraange réew mi lan mooy si seen solo ci liy ndoon liy ànd jàmm ci réew mi daf ñuy fàttali ci fu ñu jaar te yàggul dara que ku ci ñun war na xoolaat ci boppam xoolaat ci lépp la nga xamante ne ñoo ko bokk ci ni ñuy tabax muy wone armée képp ku kenn ku ne mën na caa dem xeet boo bokk loo mënti gëm ak noo mel donte na nga doon sénégalais rek loolu duñu fàttali nag yeneen sénégalais nekkul tamit ci armée ni ñoo ñu demee bokk di ak di daje armée noonu la ñu yàlla boole fii Sénégal te ñu war ko sàmm bu baax a baax a baax ci man ni ma nekkee ki nekk ci kaw armée yi di chef suprême des armées doon koo xamante ne gi ci biir réew mi ci sama loxo la ko yàlla teg benn dëkk muy Sénégal lay fàttali moom la ñu am te du ci ñun la commencé du la jeex sàmm Sénégal ci nu mu waree ngir mën ko joxe ci loxo yu mu gën a sedde suñ njaboot ci di ñëw li ci sama cër mooy tàllal la sama loxo ñëpp dajale ñëpp boole ñëpp tàppe xool yi te fexe tamit ba li nga xamante ak dal gi war ci réew mu pour ñu dem liggéey ko réew mën a génn ci góote gu mu nekk wala boog ñu ak benn askan benn jëmukaay ak benn gëm-gëm di wax ndaw Sénégalais yi que gis naa leen gis naa seen jafe-jafe dégg naa seen mettit waaye dinaa jël seen gént ak li ngeen xamante moom ngeen namm ci defaru ak defar seen bopp defar seen waajur jàppale leen jàppale seen bopp jàppale réew mi dina lépp lu ci formation lépp lu leen di jox liggéey dina doon loo xamante ne ci sama mandat bi dinaa ci am taxawaay gu mucc ci ayib loolu nag dinaa ko def muy fexe ndaw ñu am liggéey fexe ndaw ñu mën a dimbale seen bopp dimbale seen njaboot dimbale seen waajur ñi mi ci mën a àndal mooy ñi nga xamante mooy li ñuy wax secteur privé te ñoom ñoo yore ko koom gi ci réew mi bu liggéey amee tamit ñoom ñoo koy joxe waaye di fekk nag mu lalu ci secteur privé boo xamante ne dafa am doole ndax réew mi def sañ lépp li nga xamante ne naa ko jël ci ay mesures bokk ko waxtaan ko ñoo xamante ne ñoo nekk ci secteur économique bi muy secteur privé muy commerçant yi muy ñeneen ñi nga xamante ne seen loxo ngi ci dinaa ko def pour ñu mën a def loo xamante ne mooy wàññi euh, jafe-jafe yi nga xamante ne am nañ ko ci dund gi waaye loolu yëpp tamit gannaaw jafe-jafe yi dañoo war a taxaw ci lii dalal réew mi gannaaw def nañu juróom benn fukki at ñeenteel di fête indépendance dafa jot tamit ñu taxaw xool ba xam fan lañ bëgg a jëmale Sénégal ak naka lañ ko fa bëgg a jëmale ndax Sénégal dafa way war di wéy di doon modèle ci Afrique ci gouvernance maanaam ñu téye réew mi te àq ak yelleefu doomu aadama mooy man mii bés bi ma fale ba def ma président de la république ma prêter serment ci laa décidé ne cërub ndombal tànk secrétaire général Pastef les patriotes bi ma te ba ma tekke naa ko bés nekk tey pour doon président boo xam ne dafa tëddee njaaxaanaay ngir ñu jëmale ci waxtaan yi nga xamante ne dafay dalal maanaam espace politique bi maanaam lango politique bi ndax yaakaar nañu ne te loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy waxtaan ak sénégalais yi lii di lépp lu laali ci wote war nañu ko gën a ñongal war nañoo dem ci am loo xamante ne élection dootul dépendre ci ci ministère de l'intérieur direction générale des élections ndax jafe-jafe yiñ ci am nañu ko ñu bëgg samp nag lii commission électorale nationale indépendante boo xamante tamit li nga xamante mooy ñuy xoole ba parti politique yi nga xamante ne bari nañ lool a wàññi ñoom ñooy soxla tamit dem ci yoon pour ñu nga xamante ne am nañ ko fan yi kon yoon dina gën a Babacar mi nga xamante ne ci li nga xamante ne rupture la bu ñu bëgg andi te bi ci gën mag yaakaar naa ci Sénégal di ko xaar ci ñun mooy nag ñu sellalee li nga xam nas vertueuse te ànd ak tamit loo yore nga am ci éthique responsabilité maanaam nga doxal ko ci ngeen ma dénkoon nii laa ko dox waaye ñuy wëlbati ko nag lempo gu ñu war a fay pour réew mi continuer di màgg di def tabalu ne waaye ñu yàggalee noot yàggalee fitnaal te ba mënuñoo wax di xool ni nga xamante ne ay nit rek lay jëriñ waaye luy lor Sénégal la mooy ay lanceur d'alerte ñu gën leen a protéger ba fépp fa ñu fekk luy yàqu ñu mën ko wax te dara lañ ci fekk. bëgg na tamit ñi nga xamante ne dafa am ñu am ñu jël alalu réew mi bokk wala am di jàmm yoo xamante ne pour bañ rek ñu laaj leen xaalis bi ngeen liggéey lii fan la jógee mu mujjee feeñal luubal muy ay prête-nom dinañu waxtaan bu ñu waxtaan ak ñoom pour ñu mën a feeñal se waaye bu jël nañ alal loolu tax nañu jël alal delloowaat ko ci réew mi ñun dinañ am loo xam ne dañ ko leen koy ci jox pour gën leen encourager lii di rapport yi nga xamante ne tamit dañuy jël ay contrôle samp leen ñu mel ni IGE mel ni cour des comptes mel ni yi nga xamante ne ñoo soxla lu leer ci ni ñu saytoo seen alal mënuñu ko gis lool bu soobeel dina jeex ci réew mi ndax fu rapport génnatee ci cour des comptes génne ci of nag askan wi dinañ xam rapport bu lu ci buñ ko dee yóbbu ci yoon nag dinañ ko yóbbu ci yoon bu dee am na ñuñ ca tuumal loolu yoon wax ndax taqee nañ ko ko muy ay ressources naturelles ba dolli ci dellooy ki ne sax mu am ci léegi ay pétrole ak gaz waaye amoon tamit laata loolu or amoon zircon amoon leneen ak leneen gouvernement bi dina ci bàyyi xel bu baax baax saytu ko ba xam ndax niñ ko joxe xaar ñoom pour ñu matal ko ndax matal nañu ko loolu tamit muy ay audit yoo xamante ne dañ koy def non pas pour fitnaal ay société non pas pour bunt xatal leen waaye pour xool ndax xamante ne moo ci waroon nekk intre Sénégal ndax Sénégal jot na ci ndax sénégalais jot nañu ci ñii na nga xamante ne ñooy nañu xam ne wala bëgg nañoo ñëw Sénégal dañu xam ne Sénégal tey la gën a ubbeeku Sénégal tey la gën a wóor te Sénégal tey la gën a taxaw sax waxatuma biir Sénégal waaye biir Afrique biir CEDEAO biir UEMOA pour am pour dal am fa pour jàmm am fa ndax ku ne Sénégal nag wax Cheikh Anta Diop ku ne Sénégal wax Léopold Sédar Senghor mi nga xamante ne yàgg naa xar ci tànku tubéyam pour réew mu Afrique booloo pour askanu Afrique booloo kon loolu dinañ ci luñ ci mën a matal rek ci nuñ ko waate ñu matale ko noonu mbokki Sénégal dañoo war a xam ne gannaaw bu ñu moomee suñu bopp suñu problème ñun rek ko mën a régler kon kenn du ñëw du fajal loo xamante ne ñun mënuñ mën nañ ko fajal suñu bopp waaye bëgguñu koo fajal suñu bopp léegi nga xamante ne nag mënuñu koo defal suñu bopp ndax yàgg dépend ci bitim réew war nañ ci taxaw taxawaay bu baax a baax ba lu ñuy soxla ñu bañ di ko jéggaani loolu moo tax lépp lu ñu war a def ci mbéy mi ci càmm gi ak ci napp gi dinañ ko matal dinañ ko gën a dooleel pour senegal bañ a tey jéggaani lu bari ci li nga xam te ku def koy soxla pour lekk ko waaye administration publique tamit war nañoo gën a góorgóorlu gën a ñongal seen procédure def tax sama gouvernement lépp luy xarala yu yees yi ñu koy woowee digitalisation nañ ci def xaalis yu bare bare bare pour yenn yi sax bañeetee jaar nit di déplacé di jóge fu sori pour dem amee ji ci administration waaye tamit pour yokk ci transparence boo xam ne kuy def da ngay xam ne li ngay def ñëpp a koy xam ñëpp koy gis ba doo ci mën a def loo xam te ne day lor lii boo ko fokk ñu delluwaat liggéey ci caam fokk ñu delluwaat liggéey ci napp pour bañ a tee dara waaye lii di subvention agricole yi muy doon xaalis goo xamante ne dañ koy jox war ko jox producteurs yi war ko jox béykat yi dinaa fexe ba muy egg ci béykat yi taxaw ci tem mu bañetee dem ci ñoo xamante ne dañuy béy ci bëtu indépendance rek doon la doonte feet la ci ñun ñëpp waaye tamit taxawaay la pour ñu xool fa ñuy jaar ba Sénégal doon lu mu nekk tey ak nakal ban taxawaay la ñu war a am ba Sénégal lu gën màgg Sénégal gu ñu am tey loolu dafa ànd ak ñu bañ am lu ñu ragal bañ lu ñuy sikki sàkk bañ am lu suñu xel di jeexe jaaxa mooy yéen askan wi mooy li askan wi bëgg a doon li askan wi bëgg a gis Sénégal doon ñu mayante jàmm yéene wante jàmm tape xol yi boole xel yi xalaat li ñuy xel li pour mu doon loo xamante ne mooy suqati senegal ba faw mbokki Sénégal jàmm lañu kaaraange lañu ànge rek lay naataange di amee maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax bésub jàmm ci indépendance Sénégal ëllëg incha allah Thank you.